بشر القدماء مد السلام عليكم ورحمة الله mbokk jullit yi noo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di leen baal xaq te di ko sàkku ci yéen ñu fas yéene ànd ak yéen ci diiru weeru koor wi yépp ci naafile yi ci guddi gu nekk di ko sukkandikoo ci téereb sëriñ Soy bu Mbàkke bu tudd Ayni njëkk loolu ñuy sàkku ci yéen képp koo xam ne abonné ci seen youtube bii daa aynul xayaat nga daal di gaaw daal di ciy abonné ngir buñ dugalee naafile yi ngeen mën cee jot ci waxtu ak mbooleem yu am njariñ yi ñu fiy def ci bëccëgu weeru koor wi yëpp ngeen mën cee jot naafila guddi ñaareel gi nag juróom benn rakka la rakka bu ci ne faatiha benn yoon ak inna anqoy naakal kawsar ba saar yu jeex fukki yoon sëriñ bi nee na naafila googu de ku ko def dees na ko jéggal bàkkaaram yépp balaa jóge fa mu ko doon defe te dees na ko bindal tuyaabay junniy aj ak junniy umra ak yoolub ku sarax junniy dërëm mel na ne it ku seeti junni ñu wopp ak ku gunge junniy néew ak ku jàng ab kaamil te dees na ko ca bindal itam tuyaaba ju ëpp jaamu yàlla juróom-ñaar fukki at bu ko defee ñuy ñaan yàlla sunu borom subhaanahu wa taala mu nangu ñu sunu koor سنو يجامو يلا تبارك في سيقل جلنجن جف والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تبارك وتعالى وحرره وأنتقه بلا مكر ولا خرور ولا استدراج أبدا والله على ما نقول وكيل بسم